Monsieur le directeur général, vous êtes très visionnaire. Félicitations à tous les parents, l'ensemble des récipiendaires. On applaudit les récipiendaires, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Félicitations. Et pour tout, pour couronner le tout et l'apothéose, voici Wali Balago. Voici Wali Balago. C'est parti. go, go, musique, go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Say, say, say, say, Merci mignon, merci Me respect, me respect, son excellence, monsieur Moussassi. Me respect, monsieur le maire. Merci mille fois. Merci mille fois. Merci à tout le monde. Merci à toutes les autorités. Merci. Est-ce que y a beaucoup! cool beaucoup! Merci beaucoup! Merci ma wax leen Merci affaire deug mom du rombu nopp du dugg ci pax dama bëgg benen yoon ngeen tek wali sek en live listen dañ leen di nax rek playback dafa gaaw ta yomb benen yoon na ngeen fexé wali ñew indi orchestre bi ah ba beneen ha ah, léegi ma ngi ni Fatou Meng ak Ibrahima jere ngeen jëf suñu DG légui ma nga ñibi na ku nekk joxe 100 na ku nekk joxe 100 francs eh DJ DJ uma yaqal na ku nekk joxe francs 100 francs uma di na ku nekk joxe 100 100 100 100 100 cent non non 100 100 cent ok am am am am na ku nekk joxe 100 100 100 ah ma nga ñibi cent francs cent francs ah man nañ dem na ku nekk joxe cent cent cent francs cent francs cent francs cent francs acca na génn soxlawu ma mille soxlawu ma deux mille cent francs cent cent francs monsieur le maire eh Amady Amady kaay ci monsieur le maire mu jox ko cent francs cent monsieur Moussa Sy joxal leen ko 100 francs joxal leen ko 100 francs 100 francs hee fi neex na de waaw waaw waaw waaw kon di jee dem Raskis raskis raskis raskis dagg na ba gis rës loxo yi du nga caam ay ca leen wuraa gis mbacca gis wuraa gis wuraa gis wali bëggal xale yi wuraa gis wali sekk bëggal xale yi wuraa gis séeri soxna bëggal xale yi waaw du nga ba gis rës gis roos gis merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Fatou bi tey madame Meng suñu directrice jërëjëf yaay Mami Thiaw Thank you